boole ca léegi daaw nag da ko doon laal mën naa doon laal joxat joxalante dara wala ñu fóonante sax bu fekkee du fóonu gimiñ moom te te jublu ci tàggoo rek mbaa fóonu yërmaande te amuñ ca bànneex boole ci ba tey loolu du toj moo tax mu ne ilal xublat mbari fóon fil fam mi ci gimiñ fa indaxaa naka moom tànn kudd dana firi njàpp ma mutulaxan ak nu mën di demee wala turaaxaa déeful sàmmoonte fii xaa ca moom allëdatu bànneex ba fóon ci gimiñ moom li ci ëpp koy def rek bànneex la ci jublu moo tax moom bu fekkee ne da koo fóon ci gimiñ loo jëlale moom mi fóon waaye moom mañ fóon sax du tee am njàppam toj waaye kat nee nañu bu fekkee ne fóon ko ci gimiñ tam tàggoo rek la woon mbaa yërmaande tax mu def ko ko ah kon nee nañu bu fekkee amu ca bànneex boole ca ba tey du toj njàpp ma dañoo waxoon nag ne moom fóon ci gimiñ moom li ci buñ ko bettoon def ko ko itam du tee njàpp ma toj waaye daal am nañu ne bu fekkee ne ba tey fóon gi ñu la waaye tàggoo rek la mbaa yërmande rek ko waral te bànneex amu ci ba tey du toj waxam li naa suñu wax jàng ne lam su man laal koo xam ne toojul def na am allëdatu bànneex bi lam si ci laalam aada suñ ci aada dañ koo wax ihtiraasan ngir watandiku mi mën ca ka nga xam ne laa tuujal deful am allëdatu bànneex bi lam si ci laalam aada suñ ci aada fa indaa naka moom laa tam xudd du firi njàpp kas saxirat ni ki xale bu jigéen ba ëllët yi ba nga xam ne laa tustaha defu ko mën a bànneexoo wal maxarami ak aramante ba kal ummi ni ki ndey wal binti ak doom bu jigéen wal uxti ak mbokkum jigéen nee na boo déggee mu waxal la ne la laal koo xam ne daayees na am bànneex ci laal ko te misaali woon ko lu mel ne soxnaam mbaa jamono yi jébbéer amee li ñuy wax ab taara mbaa jàmbur bu jigéen nee na boo gisee wax loolu dañ ciy génne bu laaloon koo xam ne moom ca dëgg-dëgg ku ma mosaa laal doo ci am bànneex mel ne xale bu jigéen bu ndaw ndaw boo xam ne àggagu ci fu ñu bànneexoo ci moom. wala mu laal koo xam ne araamante nañ araamu dappet mel ne yaayam mbaa doom bu jigéenam mbaa mbokkum jigéenam ñooñu daay su ci am bànneex li bëgg a wax nag mooy bu laal kenn si ñu doon da caa julli bànneex itam du tax njàppam toj bu jàpp loolu mu la wax nag wax ji gën a wóor mooy bu fekkee kooku araamanteem la ni ki ndeyam la wala doom bu jigéenam la mbaa mbokkum jigéen waaye ba mu koy laal bànneexu la si jublu te am na ko ci boole ji day toj rek ba tey sax nañ fekkoon jublu ko waaye far na ko ci am it ba tey dana toj waaw ndax dañuy jàpp ne moom dafa kàccoore ndax ñooñu waru ko ci woon am kon nag ndegam mu nga ciy jublu rek bànneex iblis moom nee na jublu ko bànneex kese bi doon te amu ci woon bànneex bi war naa toj ndax topp ko ci kàccooram ñeen ñi nag moom ne déedéet da si jublu bànneex ba noppi am ko ca mbaa boog jublu ko ci loolu waaye mu far ko ci am iblis moom ni mu bëgg a waxee moom mooy bu xasee jublu bànneex bi rek moom ci laal ñi nga xam ne ay aramantee lañu koo kàccoor la koo xam ne des ko war a topp ca yéene ji rek donte amu ci bànneex bi itam njàpp ma toj ak taa ni ñaareel bi masu zakari nafsihi mooy laal sàkkaras boppam al muttasil say aji jokk bi baatini kaf yi ci biir tengam aw jambihi wala wetu tengam aw bi baatini asaabihi wala ci biir baaraam ya aw bi jambiha wala ci wetu baaraam ya min xëyri xaay lu jul jenn aji diggale xam dal moo xam ci tay la aw sahur wala ci njuumte iltasa moo xam bànneexu na am laa wala déet bànneexuwut massahu moo xam laale na ko minal kamrati ca bopp ba aw xëyriha mbaa lu dul bopp ba nee na góor bu laalee sawukaay boppam ba taq ca moom te laale ko li xong ci teng li mbaa wetu teng li mbaa mu laale ko li xong ci baaraam yi mbaa li xong ci wetu baaraam yi te laal ci jëmb ji nga xam laal ci sirip mbaa dara kooku moom njàpp ma tañ na moo xam moo ko tey moo xam dafa juum moo xam am na ca bànneex ca laal ga moo xam amu ci bànneex moo xam ci bopp ba la laal moo xam feneen la laal nga xam ne bu laaloon sawukaayu jàmbur du tax njàppam toj bu laalee bu laaloon sawukaayu boppam te laale ko lu ñuul li ci gannaaw teng li mbaa li ñuul li ci gannaaw baaraam yi ba tey du toj ba tey bu bu laaloon sawukaayu boppam te waaye waaye loolu ci jëmm ja dafa laal ci kaw tubéy ja mbaa silib ja doonte sax loolee mu sir ji dafa xaw a fit du tax mu toj ba tey bu sawukaayu boppam daggoon dal fële taqul ci moom mu laal koy ba tey du toj wala yoon taqidu du firiku moom njàpp ma bi mas yi ak ci ak laalam min fawqi haailin ci kaw aji diggale wala kaan ak doonte nekkoon na xafifan di aji woyof mi ngi noonu maanaam bu laalee sawukaay bi waaye am na dox digganteem ak loxoom ba mu ko laale doonte sax loolu daa woyof nekkul lu tël muy xaw tu mu nekki tubéy mbaa silib itam du tax njàpp ma toj wala bil xaxati du jaageen ci xàqtaay fi silaat ci biirub julli maanaam bu dee julli reeree gu am kàddu doonte aggul sax ci xàqtaay mu daal doon julli dee rek jëmi julli gi ci bopp mooy yàqu waaye jëmi njàpp ma moom du yàqu ndax ñëw nu ree bokk na ci toñ njàpp wala bi mas cibra atin du caagéen ci laalu jigéen farjaha payam ma muy sawukaayam ba al mazhab bi ci ngirum malik waxe la waxees na ne yan xudu day firi njàpp ma mu tulaxan ak nu mën di demee waxe la waxees na ne yan xudu day firi njàpp ma in qabadat neem ngëpp na xaalihi ci moom aw altafat wala mu lonkal baaraamam ay li mu ci nam add xalat dugal na yaddaxaa loxoom ba bayna shofayha diggante yaari wàllam yaa wala yan taqidu waaye nag du firi ko ci waxi ñooñu in masat ndem laal na zahirahu kawam nga rek daa wax ni jigéen bu laaleeb sawukaayam gannaaw ba mu jàppee am nay wax yi wax bi mu njëkk wax nag moom ñu bari ci lañu ànd mooy jigéen bu laaleeb sawukaayam ak nu mu ko mën di laale njàpp ma du toj boobu la njëkk wax moom la dëgëral ba tey am nañu ne nu mu ko mën di laale rek mu toj loolu moo safaanoo bi nga njëkk wax léegi am nañu teqale ne bu fekkee da caa ñëpp mbaa mu lonkal baaraamam ci biir njàpp ma toj bu fekkee dafa laal ci kaw gi rek ne moom waaye ngëbu ca lonkalul baaraamam toj du toj boobu nga gisoon ci aljawharu nafis looloo ci ñëwoon wala bi masjid du bëri du jaagéenu ci laal buntu suuf ba walal unsayin walal unsayayni du jaagéenu ñaari waa yàlla ya nee na laal buntu suuf dong du tax njàpp toj moo xam góor a ko laal moo xam jigéen a ko laal laal ñaari waa yàlla itam du tax njàpp ma toj laal bantu sowukaay bi mooy tax njàpp a toj ci kaw sarte yi waxoon wala bil inhaasi du caagéenu ci jógu sàkkara min xëyri lazatin ci ludul bànneex mën naa dindi min xëyri lazatin ji ndax maanaam sowukaay bi jóg kese dara génnut du tax njàpp a toj donte amoon na bànneex itam du tax njàpp ma toj wala bil lazati caagéenu ci bànneex bi nazari ca xool ga min xëyri masin ci ludul matin ba tey xool ba am bànneex ca xool ba doonte sowukaay ba jëg na waaye dara génnut mas yi génnut dara génnut ba tey loolu du tax njàpp toj wala bi tafakkuri du jaagéenu ci xalaat rek maxal lëgati ànd ak bànneex fi xal bi ci xolam min xëy di inhaasin ji lu jógu sàkkara mën naa dindi min xëy di inhaasin ji day wane ne doon xalaat jigéen ba am bànneex ca ca xolam ca xalaat ga kooku doonte sowukaayam jógoon na waaye dara génnul rek jëmi xalaat ga ak sawukaay bu jóg ba du tax njàppam toj moo tax min xëyri inhaasin ji mu wax jërtoon andi moo tax boo xoolee sara bi mën naa mën naa la bal walaw maxal inhaasi faraxaani lii ñaari bàngaas la maanaam lii ñaari attey fiq la al awalu bu njëkk bi dañu ne alxarxaratu jooyub biir ashadidatu ngay aji tar tooji bu dana waral alwudo a jàpp am nañu ne jooyug biir gu méttee métti jooyug biir gu méttee métti day waral jàpp maanaam mooy day yàq njàpp waaye jooju wax daif la maanaam biir bi bu jooyee ñu dégg kàddu ci biir ba mu génn ca du tax njàpp ma toj loolu looloo gën a wóor moo tax sara bi naa la haza daif waxiya moom alqarqaratu nag daa bëgg wax ne waxiya alqarqaratu mooy ar riixu almasmoxatu daaxilal jaw fi mooy kàddu ga ñuy dégg ci biir ba ak taani ñaareel bi xaala wax na moom malik fil kitaabi ci téere bi mu dawwana ne inshallah dem julli na wax wa tamit moom moom yu daa fi dana jiñanteeg alxadas am toj ahada mu baamu abadan faawu nee na Malik dafa wax ca mu dawwana ne bu fekkee waa ji ba muy julli muy góor muy jigéen ñooyam daa yëgal ne soxla woo naa dem wanag ba mi ngi bësanteeg sobe sa muy saw muy xayta xanaa daal tàyyee dem ci wanaw di jàppaat muy bësanteeg sobe sa rek nag fexe ne ba julli nee na googu julli du baax na baamu faw faw bësanteeg xayta moom la ñuy wooye alxaqlu ci arab bësanteeg saw moom la ñuy wooye alxafn alxafn ci faagi ci arab waaye nag loolu déggal ni ko sëriñ si waxee ni ko sëriñ si teqalee moom lañ sukkandikoo muy waqaale wax na al ashyaaxu sëriñ si ne in mën a xawoon dem taree na ko zalika loolee min tamaamil faraidi ci matuk farataya ahada mu baamu abadan faaw wa in mën a xawoon dem taree na ko min tamaami sunani ci matuk sunna ya ahada mu baamu fi waqti ci waxtu wa wa in manaxawoo ndem tere na ko min tamaamil fadail yi ci matu ngëneel ya fala ihaada ci déetug baa mu xale yi di ko wax ñoom sëriñ si dañoo wax ne su fekkee ba muy julli te yàkkamtee dem ca wana wa tax na koo gaawantu ba faratay matut na mu war a mate niki fu mu toll ne fa tekk defu ko na mu ko war a defe mbaa bu siggee siggi ba taxaw jonn ci teey defu ko kon nee nañu war naa baamu julli ga su fekkee nag fexe na ba faratay mat sunna yi rek moo manqué kon bëgg nañ mu baamu ca waxtu wa nga xam ne bu waxtu wa xasee jàll deesu ko digal ti baamu su fekkee fexe na ba farata yi mat na sunna yi mat na ngëneel yi rek moo manqué su boobaa du baamu kenn du ko baamuloo benn yoon jooju wax nag moom la ñu sukkandikoo ak taalisu ñetteel bi zawalul xaqli mooy rëccu xel maanaam mooy dem xel rek bil ixma yi ci ak xam awil junóoni wala ak ndof maanaam mooy say awi sukkuri wala màndi kaana moo xam nekk na a sukkuru màndi ga mi xaraamin ci aji araam aw xalaalin wala aji dagan aw binaamin wala ci ay nelaw in saqu la ndeem diis na waxtaala te mu yàgg aw xasura wala mu gàtt dafa wax ne ñetteel bi ci yi sabab am toj mooy lépp lu ko tàggaleeg sagoom mën naa nekk xam mën naa nekk say mën naa nekk màndi mandigo sax mën naa nekk mandigu araam mën naa nekk gu dagan mandigu dagan mooy mel naanum soow rek mu am doole daal di mandi mbaa doon fajuñ jox ko garab rek par garab ga màndal ko moom daal moom saa yu xasee jàpp noppi tàggu sagoom rek bu sagoo su dellu see saye boo mu jàppaat ndax duñu xam ba xam jamono yam tàggoog sagoom def na fa luy tëj jàppam déet ba ci nelaw sax mu nelawee nelaw yu am doole mooy nelaw yoo xam ne mu joon na li ñor ci loxoom bu rootee du ko yëg mbaa ku wax fi wetam kàddu ko xumb du ko dégg yi demee noonu nelaw yu diis la kon nelaw bu nelaw yu xasee diis moom duñu faale mu yàgg ak mu ñàkk yàgg lu mu ci mën doon rek dana toñ jàpp ma te xilaa fi naw mi ci wóoteeg nelaw alxaf yi fii aji woyof fa innahu naka moom laa yan xudu du firi njàpp walaw taala ak doon te yàggoon na nelaw woyof moom du yàq njàpp ak lu mu yàgg-yàgg moom lay bëgg a firi nag waxoo moom allësi mooy ya nga xam ne yashur dana yëg saaxibuhoo boroomam bi man ca ka nga xam ne yadhabu dana dem wa man ak ka nga xam ne yaati dana dikk wa saqilu nelaw ya diis nag muy wa saqilu aji diis ja woo moom allësi mooy nelaw ya nga xam ne laa yashur du yëg saaxibuhoo boroomam bi daalika ci loolee nelaw ya woyof mooy yi nga xam ne ku dikk mbaa muy dem nga yëg ko li nga li nga li nga yoro ci sa loxo bu rotee nga xam ne rot na ku wax fi yow kàddu ko xum nga dégg ko ne la yooyu moom lu mu yàgg-yàgg du tax njàpp ma toj waaye daañu sopp nag bu xasee yàgg nga jàppaat bu ca boole woon bañ a yàgg nag moom kon jàpp waru ci te it soppuñu ko ca ñelaw yu diis nag mooy safaan mooy mooy yi nga xam ne moom yëgatoo dara kooku moom mu yàgg ak mu ñàkk ak mu ñàkk a yàgg ci yam moom du tee rek njàpp ma day yàqu wa yaxrumu dana araam xalal muxdisi ci aji tojle assalaatu julli wa tawaaf ak wër kaaba wa sujoodu tilaawati ak sujoodu jàngal quraan maanaam nag boo xasee amee am toj te mën ngaa jàpp jàppoo ndax bu fekkee mën laa jàpp itam tiim mooy nekk sa farata mën ngay tiim waaye bu fekkee defoo ci lenn moom doo sañ a song rek julli dana araam nga song julli mbaa wër kaaba ndax wër kaaba dañ ci sart ak laab ak sujootu jàngal xuraan booy jàngal xuraan yi ki boo ko doon tari te fekk amewoo ak laab itam wax see ci béréb sujoot doo mën a sujoot wa sujootu sax ak sujootu jamooj maanaam sujootu jamooj mooy nga juumoon ci julli gi ñu waxal nga sujoot faaw dee aajowoo nga amul laab bu fekkee ne amewoo am jàpp mbaa bu jàpp te amewoo tiim kon doo mën a sujoot sujootu alxuraan wa masul mushafi ak laal ab kaamil bi yadihi ci loxoom aw di wax ni wala ci ab bant fekkee amewu am njàpp doo sañ a laal ab kaamil ci sa loxo doo ko sañ a laal ak bant wala muswaar mbaa laf mbuuf mbaa dara waxam lu ak genoom bi xaritatin ci aw der aw xillaaxatin wala gàddukaay der wa ko ëmb sax mel ne jëfire ja wala bum gañ koy defal di koo jàppe doo ko mën a laal te fekk amewoo am jàpp amewoo ab tiim mbaa du sangu farata waree sangu woo farata waye jo sana dagan masul law hilal alwaja lil muallimi ñal aji jàngale ja wal mutahallimi ak aji xamlu ja ala xayri wu boñ ci lu am jàpp bu fekkee nag moom da ngay jàngale ci àlluwa ji mbaa nga di ci jàng daañu la may nga di ko laal ci jamono yam cey jàng mbaa nga cey jàngale te yoroo am jàpp wa masul jus yi ak laal ab xaaj li mu taxal li mi ñeel aji xam lu ja walaw kaan ak donte nekkoon na baali xam di aji kàllafe ba tey bu fekkee da ngay jàng daañu la may jukki ba nga toll di ko jàng nga di ko laal te fekk yoroom jàpp donte sax da ngaa mokkaloon ba noppi mu fëtt la nga bëgg nga bëgg a mokkalaat bu nga rafetal mokkal ngay dutee yaa koy jàng te mokkal wut la ñamale sañ nga loolu. tey jàngale ci jusu ba it mooy ka koy jàngal di ko téye muy tar it noonu mën naa laal ab xaaj xanaa mën naa la ab jukki ci alxuraan noonu te yorul am jàpp. waaye ku defu def na si li sibyaani ñal gone ya masul musafi laal kaamil ba aljaami yi bay aji boole lil quraan yi ñal alxuraan min xëyri ba booyeen ci lu dul njàpp gone moom mu laalub kaamil te jàpp dañ koo sib waaye àggu ci mel ne mag mag moom daa araam muy laal kaamil bi te fekk amatul laab nga ca waral bu dee gone nag moom ñu sib ko lay araam de ca gone ga moom mooy mu taq sooy wa noppi ñu koy seetaan muy laal alxuraan ja kooka wax nañ ne ka ko seetaan ba mu def loola mooy gàddu bàkkaar ba faslun wa mujibaatul xusli way waral cangaay arbaxatu ñeent la inqitaahu damil xaydi dogug dereti mbërëg wa damil nifaasi ak dereti wasin wal mawtu ak faatu ab julit ñene yi sabab sangu farata mooy yi koy waral yent la jigéen ju amee woon baax ñu koy wax reegal mbaa mbërëg ba mu jeex dana war a sangu farata ak jigéen ju amee woon dereti wasin dereti wasin mooy deret joo xam ne am doomu ko waral itam bu jeexee dana war a sangu farata ak faatu gee mu wax muy ñett nga boole ci wal janaabatu ak janaaba nag muy ñeent ab jullit bu faatoo te ñu war koo sang kon sang ga bokk na ci cangaa yu farata ya bu ko defee ko amee janaaba itam noonu la dana war a sangu farata waxye moom janaaba naw xaani yaari xeet la xuróojul mani yi génnuk man yu ma almuqaarinu may aju lëkkoog li lazati ñeel bànneex ba almuotaadati ba di buñ baaxoo min na rajuli tukkee ci góor awil marati wala jigéen fii naw min ci biir ay nelaw aw yaqazatin wala ci yeewu bi fatxil xaafi ci fataa xaaf ga yaqaza lay wax naa boo ko dee bind xaaf gi dañ koy mas masqué ci kaw fataa mooy masqué ci kaw diddu noom mooy safaanu nelaw daa wax ne janaaba dañ koy xaaj ñaari xaaj benn bi mooy su man yu génnee ci moom te ànd ak bànneex génne nañ ci bu ànd ak bànneex ni ki jidda ko fett rek mu daal di génn kooku amul bànneex wala mu waru fas fasu yëngal ko rek mu daal di génn man yi loolu lépp dana toog njàpp ma ak it war koo raxas fa mu taq rek waaye bokku ci sangu yi waral sangu farata ba tey bu amee bànneex waaye bànneex bu daw ko génne ni ki dafa jurgóotu rek ci noppam mu neex mu am ca bànneex wala dafa ràmm rek wokk ràmm ba am ca bànneex loolu lépp bu amee bànneex boobu daw ko génne kon ba tey kon ba tey day yàq njàpp ñu war koo raxas rek waaye amut nag waaye amut nag sangu farata kooku nag kon génnuk man yi ma kon mën nga koo misaale bu ànd ak bànneex ba ko daa baaxoo génne mel ne muy laalanteeg moom ci yaram rek noonu ba kenn ku ne am bànneex ci laalante ga ba xanaa xool bu yàgg daal mbaa xalaat bu yàgg daal mbaa laalante ci yaram loolu lépp bu fekkee moo génne man yu ma kon ànd naag bànneex ba ko aadoo génne su boobaa kon dana waral sangu farata waxal ye jibu amaana bu dana war alxus lu cangaay la li xoroo ji ngir génn man yu min xëyri muqaaranati lazzati ci lu dul lëkkaloonteeg bànneex mis lu an yu jaamiha kem mu booloonte fayal tazzate muy bànneexu wala yun silte wàccewul man yu su ma yaxal ci topp dana génn min fu ci moom almaniyu maniyu xabla añ yaxtasi la ci njëkk muy sangu nee nañu masala mi mënoon na koo bañ a indi ndax daa wax ne xëy na sangu farata war ko te fekk na ba man yu may génn àndut ak bànneex mu misaale ko nag mu joteeg jigéen ba mu jotee nag ci biir jotoo ko moom am na ca bànneex waaye dara génnut ba mu demee ba toog nag laata muy sangu man yu ma door a génn nga xam ne kon jamono yi muy jotee tey am bànneex dara génnut gannaaw ba mu demee ba toog fee nag ba bànneex ba jeex la man yu door a génn waaye ndegam sangoogu doon rek faawu sang farata war ko kooku nag nee nañu mën na ko bañ a waxaale ndax xam nga dana la wax léegi ne la bopp sàkkar bi rek bu xasee dugg ci awra ja sangu farata daal di koy war te burtoon loolu it ndegam moom amoon na bànneex ba noppi daa génnul fa saasay saas rek gannaaw ba bànneex ba jeexee la mën yi ma door a génn koy dañuy jàpp ne rek ca bànneex boobee ku jiitu woon ca la sababoo xam ne kon daal ak noo ko mën di seet rek moom moom masala mën naa bañ a ñëw li mu ci boole nag xam la ay yaxtasi li njëkk muy sang moom lu ci baax a baax la ndax bu fekkoon ne daa jote am ca bànneex dara génnul ca jote ga ba mu jotee bu rek mu daal dem sangu ba mu sangoo ba àggal nag man yi doon génn dañuy jàpp ne kon du jar muy sanguwaat ndax benn janaaba kenn du ko sangul ñaari yoon te moom defal na luy waral ca ngaay mooy jote gam jote ba bopp sowkaay ba dugg loolu waral na sangu farata te it demoon na sangu kon gannaaw bi nag bu sangoo bu noppi mën yu door a génn kenn du ko wax ne ko demal sanguwaat ndax benn janaaba moom kenn du ko sangul ñaari sangu dañ koy wax ne ko daal mën yi mu génn gannaaw bi nga sangoo ba noppi sobe la war nga koo raxas te it yàq na sam jàpp war ngaa jàppaat waaye nag kenn du ko digal foofu sanguwaat moo tax salaa bi naa la هذه المسألة في دور السقوط فكان الأولى إسقاطها إذ هي داخلة في قوله المقارن حقيقة أو حكما فهي من المقارن حكما خير جناب day ñaar benn bi mooy man yu génn te ànd ak bànneex boobu daa génne waaye boobu mën nga koo delloo moom rek ci laalante ci yaram mbaa xalaat bu yàgg mbaa xool bu yàgg bi demee noonu mu ñaareel nag woo max yi bu xasifatil baalixi ak fàddu bopp sàkkarab mu kàllaf waxe yo moom xasifatu rasul zakari mooy bopp sàkkara aw max yi bu misliha wala fàddug lu toll ne moom min maqtu waxiha ci kañu dagg bopp sàkkaraam fii farji aadami yin ci payum doomi aadama pay mooy awra waaye nag bu ñu ko waxee fii moom day yóbbaale buntu suuf bi yóbbaale buntu sawma fii farji aadama yin ci payum doomi aadama aw xëyri yi mbaalu dul moom um saa muy jigéen aw dëkkal wala mu góor mi ngi noonu sax xayin muy aji dund aw mayit wala muy aji faatu wa in lam yusil ak doonte wàccul man yo maanaam góor gi nga xam ne mu kàllaf la bu bopp sawukaayam demee ci awray keneen maanaam moo xam ca buntu suuf wala moo xam ci buntu sawma la moo xam loola ngay dund moo xam loola daa faatu moo xam kooku góor la moo xam jigéen la ndax bu dee góor mën naa dem ci buntu suuf bi moo tax lu mu ci mën doon rek moom dana war a sangu farata moom mi nga xam ne moom la bopp sawukaayam dem ci awra joojee donte amu ca bànneex ak donte wàcciwul man yi mbaa dara kooku nag mooy xeetu janaaba bu ñaareel bi di tax mu wax nag wa max yi bu xasifatil baalix yi waan daal di wax fàdduk bopp sàkkarab jëm ju nekk mu kàllaf da ciy génne bu fekkoon ne day gone gone gu góor bu fekkoon ne defoon na bopp sawukaayam ci awre keneen itam du tax sangu war ko xanaa rek bu fekkee toll na ñu war koo digal julli kon boobaa daañu sopp ci moom mu sangu moom gone googu ba tey kam joteel muy jigéen ja bu fekkee ne génnewul man yu sangu du ko war waaye nag bu fekkee jigéen ji génne ne man yu kon sangu dana ko war moo tax saraabi naa la wa qawlul musannifi xachafatul baalixi da ko wax ihtiraasan min gayril baalixi falaa yoojibu maxiibu xachafatihi xalayhi xuslan wa kaza mawtuatuhu illa an tumniya fa yajibu xalayha gaayatul amri annahu yuntabu faqat li saxiiri in kaana maamuran bisalaati wa wati a mutiqatan aw baalixatan ka saxiratin umirat biha in watiaha baalixoon kon jàpp ne xale bu góor bi bu fekkee toll na ci ñu war ko digal julli te kam joteel nekk kuñ mën a joteel kon daañu ko digal ci ko sopp rek moom xale bu góor ba mu sangu ba tey xale bu jigéen tam bu fekkoon ne mu kàllaf daa jotee ak moom te fekk xale bu jigéen ba ñu tàmbali koo digal julli ba tey moom it daañu sopp ci moom mu sangu watam namu dana tere al janaabatu janaaba mawaani al xadasi tere toj ma ak asxari ma gën a ndawe maxa siyaadati taxriimi xiraatil quraani ànd ak dolli araamal jàng al quraan ilal aayata ndare laaya wa naxwaha ak lim roog moom xalaa waj xit taxawusi ci anamuk léemu war ruqa ak ay mocc wal istidlaali akuk sàkkoo tegtalu daa wax ne nag koo xam daa amee janaaba dañ koy aaye yeñ aaye woon ka jàpput waa ka amutoon laabug jàpp dañ ko daa aaye te weesoon nga ko léegi dañ koy aaye ku amee janaaba ba noppi nag dolli ci yi mu la wax dañ cay dolli du sañ a tari alxuraan ci làmmiñam dong xam nga bam ñàkkim jàpp dañ koy aaye woon laal kaamil ba mbaa laal lu ca bokk léegi nag bu fekkee dafa amee janaaba dañ koy aaye sax tari ga ci làmmiñam lu may nag mu tari ci benn laaya mbaa lu mel ne ñaari laaya ngir jubloo lée- léemu loolu daañu ko ko may wala jubloo mocc mel ne lugg su ko ko may ba tey buy àtte daañu ko may mu tari ab laaya mbaa ñaari laaya ngir di ca tegtaloo ne sama àtte bi kat fii laa ko sukkandikoo nga boole ca nag wa du xool masjid yi ak dugg jàkka ja wala mu ko si ak sax ga fii ci moom ko amee janaaba te sangoogut wala jigéen ju deretam jeex te sangoogut dañ koy aaye dugg jàkk rawante na toog fa romb rek jàll sax sañu ko wal xuslu ca ngaay mina janaaba ci janaaba mustamilul aji làmb wala xalaa faraida ci ay farata wa sunanin ak ay sunna wa fadaida ak ay ngëneel fa amma faraiduhu daal ay farataam fa xam satun juróom la ngaa wax ne ca ngaayul janaaba amina ay farata amina ay sunna amina ay ngëneel waaye mën nga ne ci ngaayal farata benn woon rek mu yóbbaale bu ko janaaba waralee ak bu ko leneen waralee niyatu rafil xadasi yéene yëkkati toj ma ak akbar yi ma gën a rëy maanaam na nga yéene yëkkati toj mag mi mooy da nga yéenee joox ca ngaayal faratali kooku nag booy tàmbali rek la neex daal yéene fa saasa ndax ndegam moom lépp li feeñ ci dër yaram wi sang ko raxas ko doxog loxo àgg fa farata la kon mën nga daal tàmbali daal di yéene fa saasa wa taamimu zahiril jasadi ak matale bitti yaram wa bil maa ci ndox ba tey yaram bi lépp daj fenn fu nekk nga àggale fa sa loxo ak ndox fenn bañ a des loolu ba tey farata la waddal ko ak ragg ga li wax léegi mooy ndox àgg fu ne waaye da nga ci boole itam bomb ga boo xëppul rek ndox bàyyi te fekk nga mën koo raxas du doy te aajowoo nga bomb boole ci lu muy addal ko wa taxliilu shahari ak xalil kawar ga ba tey fu am kawar fu ne ci sa yaram moo xam day ci bopp bi moo xam day ci sikkim bi moo xam day ci kaabaab gi moo xam day feneen ci yaram yi boo xasee bay sangu farata moom fu am kawar fu ne rek war nga koy yëngal ba ndox ma dugg ba ca biir wal muwaalaatu ak sësale ga al muwaalaatu mooy boo xasee tàmbalee sangu bul ko dagg ngir lenn lu may dangaa àggale doo ko sañ a bàyyi dem di waxtaan mbaa ngay def leneen bu fekkee fàttee tax moom ba mu yàgg fàtte ga du ko yàq waaye bu fekkee dangaa tàmbalee sangu fara ba nag bàyyi ko nag ci sa coobare ba mu yàgg rek noonu la nga defoon di yàqu nga war koo tàmbaliwaat wa amma sunanuhu daal ay sunaam fa arbaxatun yent la xam ne ñeenti suna albat u mooy jëkkee bi xas jadeen ci raxas yaari loxo ya xabla idd xaalihimaa ci njëkk seen dugal fi dinaay ci dab la booy tàmbalee sangu farata ni ngay tàmbalee sangu janaaba rek ñoo bokkule ngay raxas loxo yi ñetti yoon ba fa ngay takk montar mbaa fa ngay takk jara bu dee jigéen bu dee ndab lu ubbi nga xam ne ngaa danga as wala ngaa tàmbalee as da ngay dëngal ndab li raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbalee as dañ ko weesu woon ci gannaaw wa mashu simaaxil udunayni ak masa bën bënu ñaari noppi ña wal madd madatu ak galaxndiku wal istinshaaxu ak saraxndiku tey duñu wax masa nopp yi ndax li nga mën a jàpp ci nopp yi mook sa dënn ak sa biir ñooye moo képp da nga ko war a raxas bu baax a baax ni nga raxas si biir dënn waaye bën bën bi ci biir nag dañuy wax ne moom nga fomp ko loxar ci ko sunna la bu ko defee nga boole ci galax diku paxum gimiñ gi ak sarax diku paxum bakkan yi xam xam ne kon boo seetloo sunna yi ca ngaay moom boo xasee wees raxas loxo yi ñetti yoon ci des yëpp ay pax la yoo xam ne ci yaram wi feeñut nga war faa dugal ndox dégg nga wax ne ko gis nga paxum gémmiñ gi bu dee sa wax ni ko gis nga taxum bakkan yi gis nga itam fee bën bën noppee lañu wax waaye néew ñu nobbi ci boppam wa amma fadailuhu ndaal ay ngëneelam fa sabaxatun juróom-ñaar la sangu farata am na juróom-ñaari ngëneel ak tasmiyatu mooy wax bismillahi maanaam booy tàmbalee sang nga wax bismillahi wuute nañ ci ndax da nga ci boole arrahmaani rahim am na nga yem ci bismillahi rek wal badu ak jëkkee bi xas li maa ci raxas la nga xam ne xalaa badani yi nekk na ci yaramam minal aza ci sobe su ma wëddoo topp njàpp ma kaamilan mbir mi aji mat maratan maratan benn benn bu ko defee nag nee na yow bëgg nga jëkk dindi fu la sobe takkoon ci yaram wi walbatiku nag raxas li tàmbalee jumbax jëm ci bun suuf beeg sawukaay bi te daal di yéene foofu faratay cangaay li walbatiku nag léegi njàpp njàppum benn benn mooy leen lu nekk raxas ko benn yoon ba noppi itam baag yi tànk yi nga far ko raxas benn yoon jëru faa dégg far ko raxas benn yoon moom i gën a taamu wayen wi dana yéene bii ci njàpp ma rafaxal janaabati yëg yëkkati janaaba ja xantil ka en daay walis yooyu la cër daa wax ne nag ndegam na ngaa amee janaaba booy njàpp njàpp benn benn bi da nga yéene yëkkati janaaba ja ci cër yooyee waaye loolu da ko wax waaye du ci sart